mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu te leen ziar tëdd leen ndokkeel ci bis bu màgg bu tedd bii nga xam ne ci lañu nekk muy ñaar fukki fan ak juróom ci weeru diggi di bis boo xam ne bis bu màgg la ci sunu diine ji di diine di diine yi lislaam ndax ku ne xam na ni yonenti ala Musa alayhi Salam man nañu wax ne ci teunk lu mu am ci boromam rek ci bis bi la ko ko suñ borom jox muy bis bu rëy kon ñi ngi ci nuyu ci di ci ziyara ci di ci ndokel ànd ak di santat Serigne Touba Abdullahi wa Khadim Rasul minu yalla bolel sëriñ Saliou daana wax ne nañu sant yàlla ci boole gim ñu booleeg sëriñ bi waaye mat na ko lool ndax waxu mooy sax ya ca kaw waaye yii rek jaraloon na ànd ak sëriñ bi ndax mboolem bis bu baax ci lislaam te jara màggal sëriñ bi teg na ci loxo xam ngeen ne weeru koor wu mag wi sëriñ bi teg na ci loxo tegaale loxo ci laylatul xadar jox ko leeram gu baax kook ji di soxna Maymuntu soxra mu di ko taxawee ba fi mu ne ak njabootam ñu ngi koy wéyal waaye xam ngeen ne bisu kanzu rajab jox na ko doomam ji baax ji si Ahmadul Fadal xam ngeen ni nisfu saxabaan jox na ko borom daarul moxti suñ ko toppee bis yu baax yépp noonu lu ko sëriñ bi def eh, laylati mawlidi nabi nag muy guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi moom da koo jagoo muy bisu boppam nga xam ne mooy bisu sëñ Tuubaa màggal gi moom bisu yàlla la bu sëriñ bi di sante boromam sant képp ko ko yaakaar moom bu yegsee tee nga sant la ko ci boromam waaye bisub sëriñ Tuubaa mooy gàmm yàlla moomale ko ko itam wax ne shahru rabbihul awali liya ni mu waxee ne shahru ramadaana liya waaye bis bii itam bokk ci bis yu mag yooy mu jox ko sunu yaakaar ji nga xam ne moo waral jataay bi tey borom bis bi di soxna Aysatu Gaawaan Mbakke bintu xaadimu rasul ñu fas yéene waxtaan ci jëmm ju sell ju tedd jooji di soxna Aysatu Gaawaan Mbakke lenn ci ay ak dundam muy dundam gu barkeel gi nga xam ne ni ko sëñ Muntaxa di wax ci waajuram boo wax ne sëriñ bi biñ ko gisee ba biñ ko noppee gis ci mom la nekk waye soxna ay suga waxan biñ ko gisee ba biñ ko noppé gis ci serigne bi la nekk di murid bo xam boleh boole wala serigne touba ak dara dara dara ndax bisam bi mu daan magal nga xam serigne touba moko wo jox ko ndigal ne ko aïssatu ñaar fukki fan ak juroom ci baraxlu fu la fekkati nang ko magal ba ko ko bi waxee ci at momé ci ndiarém la ko magal màggal ba gawan demee magal di bim mu ñëwee ndulo magal ko màggal ba diko ñëwee tubaa di ko wéele ba ci boromam mas am bëss bi ñi diko magal kenn ci kilifa yi ñëw siara si soxna ci té diko wax né ko mbacké bis bi dé bis bu mag ndax yonent yalla Moussa mu tedd mu baax bi nga xamné alcorane tudd nako ba tay bis bi lu mu am ci yalla ci lako amé soxna ci def ko na ah man nak Moussa taxumay magal Moussa dé taxumay magal nak ndax seq ma Moussa lu ma koy magalé man ndigalal sëriñ tubaa lay jëfe sëriñ bee mën a woon fu mu la fekk ci tànk màggal ndigalal sëriñ tubaa jooju rek lay jëfe loolu lépp day delluwaat ci tàmbalee ci sëriñ tubaa yem ci sëriñ tubaa ca doyloo sëriñ tubaa euh, muy soxna soo xam ne niñ ko xamee ci taarix euh, mu ngi ganee jamono ci dëkk bu ñuy wax gànnaar gànnaar di barab boo xam ne barab bu sëriñ tubaa bàyyi xel la di barab bu tedd boo xam ne maanaam leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak mbotam fa lañ ko denc ben serigne touba ñewé sun borom mako fa dencalon serigne touba tek ko ci loxol serigne touba nda wax na ne ko japp ne sama liggey bi mo liggey mo tukki won ci geej gi ak tukki bi ma dem ci gannar ñoyam serigne bi neena na daf bu mata a nga ndax ñu ndax liggey geej gi ay rek la waaye demuk gànnaar gi tukkib gànnaar bi moom sëriñ bi nee na ay pay la kon nag fa yàlla tànnal sëñ Tuubaa yóbbu ko fa di ko fa faye foofa suuf si yàlla barkeel la foofee nag fa la soxna ay situ gaawaan mii ñu fas yéene waxtaane ganee jamono euh, sëñ Bakary danga nga xam ne euh, ganek jamono soxna ay situ gaawaan Mbàkke bintu Cheikh al yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko yëgal sëñ Tuubaa ne ko sa borom nee naa ñëw bégal la mbég moo xam ne mosuma koo bëggal kenn ci dootuma ko bëggal kenn ana mbég mi mooy lan mooy sa borom nee na gannaaw bi nga ko liggéeylee ba noppi ba ngay tàmbali liggéey ba day yaa nga yemoon ci ñi ñuy tudde ay doom ci yow ka ñuy wax Cheikh Mamadul Bachir waaye sa borom nee na koo gisati ginnaaw sëriñ Basiiru moom yi na nga xam ne mi ngi bokk ci awliyaahi yàlla yi nga xam ne ñoo gën a màgg wàllu yu yàlla yi ña ca gën a màgg ci ëpp ci ay daraja nga xam ne ñooñu yàlla rekk leen jagoo yonent bi ne sëriñ Tuubaa maanaam koo gisati ma nga bokk ca ñooñee mu wax ne bachara nii bachiru sallallahu alayhi wa أن كل مولود لي بعد ابنه البشير من أكابر الأولياء الله تعالى يعني ينتي موما بغل نما غناو سا دوم جي محمد البشير كو غيسيت رك ماغا بوك تي أكابر الأولياء هي كوكا نك كتا جيتو دي سين كليفا نجك فاغن موي سخنا عائشة غاوان بنت شيخ الخديم تي دندم جي leer na nañ ci ne loolu yonent bi waxoon Serigne Touba feeñ na ci lépp lu ñu daan yaakaar ci akabiri awliya yooyu baa ñu di ko dégg ci ñoom baa ñu di ko jort ci ñoom gis nañ ko ci dunduk soxna su gaawaan loolu ku xam soxna si xamuk dundam xam nga ne loolu firndewu na mi ngi gane jamono ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci aw baraxlu ba mu ganee jamono sëriñ bi dafa bëgg lool ndax la ko yonent bi sallallahu waxoon te dikk ko ko excellent sëriñ mi ngir feeñteel feeñal mbégteem moomee mom gu siiw gu caganar gu rëy ga nekkoon ca te sëriñ bi fonkoon ko lool sëriñ bi daa di joxe ndigal ci nañ ko lewatal terale ko mboolem jullit yi nga xam ne ña nga woon ca barab boobee ngir gan gi ko yàlla baaxee muy eh, bu rek mu doy bi di ne soxna Xadi Koki, cagn ko gëna a ci soxna xadi gànnaar nañ ko takal mok loolu mu andal muy gan gogi ti yebul mako darul manan buñ demee ñu ganelal mako fofé bañu ba bay jóg bëgg bëgg bëgg yox ngir wutsi si réew ngir jëm darul manan sëriñ bi nyerun wax ñëron yebul soxna xadi ne kadi, soxna xadi gan gogi mu andal am gan gi waje yaksi muy sahru ramadan al mubarak ay Aysatu moom yi na ci ñiko wara teral te teral weeru koor moy wor ko kon bu weeru koor wi tero nang ko bayyi xel ndax moom mag ñi ñoo wara and wor woor ko weeru koor wowe fekk sanastu gawan ci kaw suuf mu am ñetti fan sanastu gawan mo moom mag ñee ko umandoo da wor weer ba jeex tak loolu di kéemaan goo xam ne boo ca yemoon képp ñu xam ne la yonent bi waxoon ci moom dikk na eh, moo tax bi mu tollee ci ak mag lool te wéradi Cheikh Abdoul Ahad ñëw fa mm, ne ko damay siyaare si waaye li ma indi nag leen rek la mbàkke mooy xam naa ne weeru koor ngi jege si ci xam naa sag gëm yàlla xam naa sag bëgg diine xam naa sag fonk farata ak sa bëgg sunna ak liggéey bi ngay liggéeyal sa baay ci lislaam xam naa ni weeru koor yi sa yéene mooy woor ko waaye fi nga toll ci ak mag ak wéradi gi mayu la nga mën a woor li ma lay ñaan mbàkke mooy rek wooru koor yi nga bàyyi bañ koo woor te xam ne lépp loo daan jële ci koor gi sa baay dana la ko defal ni nga ko bëggee ndax ak tële la dab waaye xol baa ngi fi ba tey soxna su gaawaan dafa ree Cheikh Abdou Lahad ne ko mbàkke yaa bari yërmande te baax Hmm, sa yërmande ci ak sa mbax gi fo tol day gën di feñ waaye abdul ahad wéru koor mënuma koo bañ baña baña a ndax man bi may gëna jamono am ñetti fan la gën a néew doole te sa baye dama santon mo wor kon duma xaar ba tay ji war ñibbi ci sa borom du fa yobale borop koor bàyyi ma rek ma jëm wéru koor yo sonna su gaan da ko ba mu jeex bañu woré ba tek ca ñetti fan la sonna wacc ab liggéey lolo di kéemaan gu doy war ndax waxna len leen ne ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci la gëna jamono mom soxna ci kon ñetti fan lañ ci kor weeru koor tay danyo waye dañu wari ba teg ci ñetti fan soxna ci wacc kon mom dundam gep koor la wa ni koor gëne ci jaamu yalla yi gën ci kawé laylatul xadar gëna mag ci bisi gën ci kawé non la soxna dah gawan gëna kawé ci luddul mom ndax mom dafa jaxaso koor mbirum mepp day koor Eh, soxna su moom yi nag bi mbiram demee noon yi su ngeen gisee sorewuma ci taarix ndax kuñ ne sëñ Maxtaar Ndumbe mooy sa maam wax dëgg yàlla doy na aw tagg ci réew mii sëñ Maxtaar Ndumbe moom sëriñ bi la kenn xamul lu mu doon waaye sëñ Maxtaar Ndumbe doy na sëkk ab sag doy na tiitar doy na ndëgër ci der bu ñuul mooy maam yi soxna Astu Mbakke waaye koñ na Cheikh Al mooy sa waajuru góor jaratu la sori ndax sëñ Tuubaa moom doy na sëkk ndax moo man ku njëkk moo man ku mujj ni yonent bi sallallaahu alayhi doone gën gi mbindéef nga xam ne kenn du werante ak ngënam gi mbindéef noonu la sëriñ Tuubaa waajuram wu tedd bi doo doone man mi mbindéef kon moom man gi mbindéef mooy waajuram doy na sëkk ci taarix ñu wax ne sëñ Tuubaa baayam waaye sëñ Maxtaar Ndumbe mooy maamoom Eh, soxna si gaawaan moomu nag eh, bi mu ganee jamono sëriñ bi mm, jëflante moom ci nii ba ñu indi ko ndaam tudd ko muy eh, darul manaan ba mu tollee ci wara a jàngit sëriñ bi dafa am ci soxna si gaawaan cofeel goo xam ne maanaam mosu ko am ci kenn am ci itam wagar gum ko wagar goo xam ne mosuñoo gis sëñ bi kum ko wagare noonu ndax sëriñ bi dafa fiiroon ci soxna su gaawaan bëgguloon ko xool soxna si sax nit ñi xam nañ ne soxna su gaawaan bëgguloon ko siggi di ko xool nii ne ko jàkk ndax comme sëñ Tuubaa da ko doon bañ soxna si da koy bañ la sëñ Tuubaa bëgguloon ko ko xool la jàkk te it amoon na xëy boo xam ne ku ko ne jàkk ba bu siggee ba xool la rek eh, da nga yëg loo xam ne dootoo ko ñemee def mukk ci kaw suuf booba ngay faatu dootoo ko ñemee xool bu àggsee da sëgg ndax sëñ Tuubaa fonk gi mu ko fonkoon nga xam ne ni sëriñ bi baaxoo def sax njabootam yépp da leen doon jox sëñ daam Abdourahmane Lo mu jangal leen waye sanas gawan mom moom sëriñ bi nijaayi bopam ju bok ak waajuram mu jigen lépp la sëriñ bi jëloon tek ko ci loxol soxna gawan ngir mu jangal ko mu jangal ko njàng mu gaaw soxna mokal alquran alxuraan mu rafet mën bind lool te nuroog sëñ Tuubaa bind eh, ku gis sëtam eh, eh, doomam ji wax ji di di di di serigne abdou samad mom serigne chouaibou ko gis te mu man te mu baxé la dan la won bindam sonna su ndax mom ko am tawfiq ci sonna su la serigne abdou samad eh, bindam sonna su am nako te it ku labir la ko xamné ku ko siaré tam tax la juk dana la won beut nga tek ci bindam sonna su sey beut euh sonna gaawan momi nak bi am no pé rek fekk serigne bi ñibbi si sëriñ bi da koo lacc ko mu ñew bimu ñewé itam sëriñ bi bayyi ko sax mu dem na ca biir jigen ña baye sëriñ bi ci kessu bopam lako wutal kess soxna su gaawan nefa fa nga xamne ne bi moko don saytul bopam waaw am ci moom cofe lol am ci mom ñewante lol tek ko ci ci parab bi ko sun borom subhanahu wa taala tek soxna ci teel bari sañ-sañ lol itam ndax yàggoon na ci ab sañ-sañam bu mosaan bëgg dara ci sëriñ bi fekk ñëw fekk sëriñ bi di naafila julleem gu bari googu yi wala mu fekk sëriñ bi di jàng alxuraan wala fekk sëriñ bi bind xasaayitam yi muy tagg yontu salaa salaam bu agsee rek daal di wax sëñ bi li mu bëgg ne ko nangam ak nangam ak nangam tax a jóg moom laa soxla bu sëriñ bi wéyee ci mbindam mbaa mu wéyee ci njàngam da koy wax ne ko bàyyi li ngay def ca fajal ma sama aajo ma dem nga wéy ci li ko doon def sëriñ bi day dagg li mu doon def lépp la soxna su do ndox mu lijjanti ko bo mu soti sëñ bi soog wéy ci ab liggéeyam ca lañ ca ngay xamé ne kon ku bari sañ-sañ ngi ni muy jëm jo xamné dal dundam gu barkel la sëñ tuba tel ko jox itam responsabilité ndax waxna la ne mom la sëñ tuba ñëk gis gannaaw ya bi mu liggéeyale yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba liggéey bi soti mu ñibbisiwaat fi ci réew mi xam ngeen ne taw Cheikh Ahmadou Bamba mooy sunu wajur wu tedd wi di soxna Faati Ja mooy taw Cheikh Ahmadou Bamba ndax soxna Faati Ja moo mag yoonu murit sëriñ Moor Anta Sali sunu maam ju baax ji moo ko tudd ci nekkam la gën a jamono jiitu na yoonu murit lu yàgg yoonu murit di soo ko sosu nga xam ne yoon wi ci kanamam la sosu mag njëg a jébbalu ci kanamam la jébbaloo moom ñoo ma ànd def loola ñoom la sëñ Tuubaa boole tarbiye tarbiye na booy lim ñu njëkk ñu njëkk ci loxol sëñ Tuubaa mu tarbiye leen boo fàttee soxna Faati Ja fàtte nga euh, kilifa gu mat kilifa ndax sëñ Tuubaa ko tarbiye te it olof yi wax ba yar bay tooy la ko daloon moom soxna Faati Ja fi sëñ Tuubaa jaarale di Cheikh rek ak Maam Cerno jaarale fa sëñ Daam Abdourahmane Lo euh, jaarale fa sëñ Masamba Diop Sam ak Cheikh Ibra Sarr jazaaka foofii la sëriñ bi jaarale soxna Faati Ja nga xam ne bi sëriñ bi noppee ci mom rek njabotum gu jigen gep sëriñ bi soxna fatidja la leen joxal mo leen don tarbiya waye ki ñu waxtane nak moy kan mom moy tawu khadim rasul ndax sëriñ bi Cheikh amadou Bamba la tuddu lako ay waajuram tudde won waye xam ngeen ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo sakku ci boromum ku ko ñëw ko liggéeyam bi mu don te am lu ci dess ca bu lolo ñew dara du soti E, suñ borom nangul ko ko boole kook sëriñ tubaa mu ne raama rasulullahi min ilahi kaw nii xadimuhu wa abdullahi kon leer na ne xadimu rasul moom yonent bi moo ko sàkku ci boromam boromam tudde ko xadimu rasul yabal ko mu ñëw ngir liggéey rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu wax ne allamani rahmaanu fii safina bi annani al xadimu sil madina kon sëriñ bi bi muy ci géej gi la xam ne moom mooy xaadimu rasool mi yonent bi doon sakku kon gannaaw bi mu ñibbisee nag ba liggéey liggéey boobu bi ko yonent bi doon dooyee ba noppi ki mu njëkk a gis mooy taawu xaadimu rasool kooku mooy soxna Aysatu Gaawan bintu Cheikh al Xadim sëriñ bi jox ko responsabilité mbooleem njabootam gi nga xam ne moom la ñuy tudd ñoom lañuy ñuy tudd tudd sëriñ bi ak wajuram yi nga xam ne dañoo nekk ci wanagu sëriñ bi ci xaw a maaseeg moom ñooñu ñëpp sëriñ bi teg ko ci loxol Sanusi su gaawaan sosal leen ab daayira moom sëñ Tubaa tànn leen ay xasida yoo xam ne ñoom moom lañu ñu war a jàng muy ab diiwaan bu mag boo xam ne eh, doomam jubaax baax ji di eh, sëñ Abdou Latif Jenn bindaat na ko ba mool ko bañ koy tasaare ba taalibe yu bari am nañ ko muy as yaat boobu nga xam ne ci juróom-ñaari fan yi ci lay wër nga xamne bis bu ne serigne touba da dana joxoon dog dog bu ñu wara jang nga xam dañuy jang ba barap sangam ñu taxaw amna benen dog bo xamne mom moom duggal ci digënté booba bu dog bobu jexé ñu jàngaat dogub ñaarël bi bis bobu jex bu suba ñu jàngaat benen dog nga xamne juroom ñaar juroom ñaari fan yi ci la loolu yu wër ay yu limu la yu bari eh, nii ma koy waxe am na yu ko xam ba am nañ ko ñu ko amul buñ ko jokok suñu ak Seigne Abdou Latif rek dañ ko mëna am nga xamne ne bi moko tanal bopam ci xasida yi jox ko soxna su gaawaan njabotuk sëñ tubaa gogui diko jang daño bolé won jangum durus xasida yi ak di ko yëkkatil sëriñ dañ ko daan yëkkati ñom njabotuk sëñ tubaa gu jigen gi loolu lu leral a la ndax da ngay dégg ñuy ñuy ñuy yu bare bare ñu di ko wax ci jangum jigen ak nangam nangam waye sëriñ bi dal lu mën xew njabotum gu jigen gi di ay domam ak soxnaam yu tedd dañ daan yëkkati xasida yi di ko yëkkatil sëñ te it loolu du lu araam maanaam lañ cay bañ du dal sëñ tubaa dal kuy dund kuy dund sëñ yoonu sëñ tubaa mooy e, jigéen ñi xam ngeen ne sëñ tubaa këram gu keesu góor ñi ak keesu jigéen ñi duñu laale mën ngaa ne ci kër sëñ tubaa weer ba weer yu dellu si ci diwin déwén sa doo gis jigéen ndax fa jigéen ñi nekk ñoom rek a fa ne fa góor ñi nekk ñoom rek a fa ne waaye na góor ñi doon doxe ci xasida yi noonu la jigéen ñi doon doxe ci xasida yi ci soxna su gaan moo ko doon jiite te ñun am nañ ci ay firnde yu leer ndax euh, soxna Aminta Amar bokkoon na ci ñoom te ku guddoon fan la ñun fekk nañ ko fi xam nañ ko bu baax a baax li may wax ku ko laaj sëriñ Omar Ndiour moom sëñ Moustapha moom sëriñ Massamba dana la ci wax lu leer soxna Aminta Amar moom yi moo ñu nettali ne soxna si moo daan jiite liggéey ba moo doon seen jëwriñ waaye man soxna Aminta ak soxna Faati Jaxate mom serigne saalihu ñu daan jité jang mo ñu daan daj neexon baat lol te deg daj nga xamne soxna Aminta Amar mi serigne saalihu daana yoni auto ñu jël si ko muy jangal dongay serigne saalihu daj yi nga xamne moy mooy daaju cosaan yi ñu daan jangal serigne touba euh, liggey bobu lañ daan liggéeyal serigne touba soxna su gaawan nag ñu wax man moo wax ci lamiñu bopam man ak serigne Adama ñang wa kana xan bis bo xamne dafa am liggéey bu mu ñu doon sant bu jëm ci xasida yi waaye ci biir waxtaan dafa wax ne sëriñ bi daf maa woo njaareem ba ma ñëw mu ne ma Aysatu ma ne ko Mbakke mu ne ko dama bëgg yaaw ak sa bokk yooyu yi ngeen farlu ci xasida yi di ko jàng te di ci ñaanal seen maam soxna Buso ndax kat muy soxna jaaratullahi Mariama Buso soxna jaaratullahi Mariama Buso kat am na lu war sama digg ak moom ci di ko ñaanal di ko ko te man rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama dafa jël sama jot gépp bu amatuma jotu keneen ku dul moom te bëgg ma soxna jaara mu tëdd ca barzaq muy jàmbat naan sama faati mbàkke ma bu ma deseen ginnaaw ndax soxna jaaratullahi benn doom bu jigéen la am muy soxna faati mbàkke yàlla daa dogal dafa réer ndax soxna si dafa xëy di rooti boobu ñu ngi xuru mbàkke soxna faati topp ko ci waa kër yi yëguñu ko soxna si tamit yëgul ne soxna faati topp na ko ndeke daa génn ba ci àll bi rek naar yi taseeg ay naar ndekete naar yi gis nañ soxna si fab ko yóbbu nga xam ne noonu la ci soxna jaara toll muy lu diis di lu metti sëñ Tuubaa nag ne bëgguma benn yoon soxna jaara fee mu tëdd di wax na sama faati mbàkke ma bu ma desoon ginnaaw kon yéen ñii sama njaboot gu jigéen sant naa leen ngeen yittewoo seen mbirum soxna jaara seen maam soxna jaara kon dee leen jàng xasida yi te di ko ci ñaanal soxna su gaan wax ñu ne sëriñ bi sax tànnal nañu ñaari xasida ne na ëpp na gën a fës ci li ngeen koy ñaanle muy xasid ak sindi di ak xasid ak mawaaxe bu naafi ba noppi jox leen bi siñ koy jàng moom sëriñ Tuubaa soxna si nee na sëriñ bi daf leen wax ni maanaam ngoonuk takkusaanuk alxames june na ngeen jàng juróom ñaari mawaay bu kenn ku ne ci yéen def ko addi yu soxna jaara su ngeen demee ci yor yorub altine na ngeen jàng ku ci nekk juróom-ñetti sindii di ko addi soxna jaara yakarna ku min keur soxna su gaawaan xam nga daayira ba fa ne xam nga ne liggey bobu ba tay ma ngay dox ñong koy doxal Aminta Amar neena na su di taxawu liggey bobu neena serigne touba da ko fonkon bu serigne touba mosaan bind ak khassida gu yes bala khassida ga dab ci serigne Masamba mu di ko day wo soxna su jox ko ko soxna si jang ko ba mokkal khassida gi tare ko fi kanam serigne touba serigne touba di sogo a min momay serigne Masamba nga xamne kon dafa melni ne yi ñaarem yépp ci dëndu soxna su gawan lañ ñëk soga dem ci loxol serigne massamba lolou di cër bu rëy soxna si nak ci jotaay bu mu wax ne serigne bi dafa daf ko wax ci jotaay bi nako ko mu ne ko mbacké mu ne ko denk na la sama liggéeyu xaside yi nak mako saytul soxna si nañu nak liggéey bobu di bima ko serigne Tuubaa denké ba tay mako tey sama loxo bi àndoon ko sama bokk yu sell ya ak sama waajur ya bima démé ba gisatuma len ñi ci dess ak mag japp len kenn dayuma ci makoy defal sama bop ci sama bir néeg bi waye yeen nat na len ba xamne doy ngeen ma ci wettal def na len ci ngeen di sama wettal ñu and di liggeel liggéeyal sëñ dal ne dinaa leen sax mbar mu ngeen koy jang ci kër gi Abdou Khadir ñew fa mu ne ko Abdou Khadir mu ne ko mbacke mu ne ko sama taalibe yi di jangal jàngal yi dama bëgg nga defaral leen mbaar bar mbaarum xasaayit mu ñuy jànge seen Abdou Khadir daf ko ne léegi daa di dugg ci oto bi dem jënd ay bant jënd ay seng ànd ak ay ministre dellu siwaat ci kër gi ñu tegal ko ab sees sëñ Abdou Khadir toog ñuy defar ba mbaar ma yegg mu ne nee nee leen soxna si mbaar mi yegg na soxna su gaaw ñëw ànd ak Cheikh Abdou Khadir ñu dugg ci miir mbaar mi mu léemu mbaar mi Cheikh Abdou Khadir soo ko dellu si soxna su gaawan daana wax ne mbaarum Abdou Khadir moomee ku ci dugg suñ borom jéggal la ndax sëñ moom dafa mel ne suñu borom da koo boole ak akum jéggal ndax bi mu ganee jamono rek borom daru serign bi daf ko ne yow mi dem diko tuddi bo ba ngay delu ci ko fi tassel mu gis la baa yow nga gis ko kooku jéggal nañ ko ci barke jëm jojé ngay tuddi motaxit lola da top Cheikh Abdou Khadir ba mbar mu mu liggéey sax ku dugg ci mbar ma eh, sun borom jëggal la soxna si daane wax ne de len julli ci mbar Abdou Khadir mom ndax mbar mo xamne ku fa dugg ñu jëggal la ku fa julli ñu nangu ko eh, di ko xamne ku sans gawan bàyyi xel la soxna gawandal, arem di taxaw liggey xaside yi di ko taxawul borom tuwa and ko ak bokkam yu bax yu yoy yi na ngeen xamne soxna Mariama Jaxate mom Cheikh abdul Ahad ku teela wacc liggey la ndax ci ñaar fik at ak ñett ci la wacc liggey waye ku jambaare won la ci liggéey boobee doonoon durus xaside boo bo xamne ba fi may wax ak yow nun ñi di tuddu ay kat seeni guñu pendam ndax eh, danaan yëkkatil serigne touba ci biir keesu sëñ tubaa gi da daan ñëw takk ndigam moom soxna si di yëkkati sëñ tubaa jaalibatal maraaxib eggoon na ci bëgg jaalibatal maraaxib dafa bindoon fukki jaalibatu ak ñaar moom lay mu moom lay musóor waale mbindam loxo la ko def di koy teg ci boppam soo ko takk boppam musóor waale ko soo ko muuru maanaam ku bëggoon jaalibatal maraaxib la moo tax bu ma gisee am Amsatu Mbàkke mel ci nii du doon kemaan ndax maamam moo féetewoon ak jaalibatal maraaxib ci daa ko yëkkatil sëñ tubaa sëñ tubaa am du hasard su ko defee soxna si gaawoon moom yi nag bi mu nekkee ci loolu bu mate dem kër sëriñ bi daf koo jox ab jarbaatam boo xam ne e, moom waajuram ak maam Cheikh Anta ñoo bokk lépp muy soxna Faati Anta ñu jox ko ko muy sëñ Mouhamadou Lamine Touré e, mu jël ko maam Cheikh Anta yóbbu ko gaawaan waaye bu mu eggee gaawa nit maam Cheikh Anta daf koo dogal keesu boppam bàyyi ko ci biir kesk ka wutal ko ay bëkk néegam ak surga nga xamne nit ki man na dekk gawan dend ak mom ay saket te du mës tek teg bëtam ci soxna gawan gaawaan ndax sëñ Tuubaa bugguloon ko koy ku koy xol mu nekk gawan nekkin woowu mu fa euh ba mu soob yalla sëriñ bi ci bopam defal nako lo xamne kenn musta deg jenn doomi sëñ Tuubaa juko am du ju góor ju du jigen am na itam loo xam ne ci soxna su gaawaan rek lañ mës a déggee ne sëñ tubaa def na ko bi bi njëkk bi mooy sëñ tubaa jóg ak tànkam dem seeti doomi boppam loolu soxna su gaawaan lañ ko njëkk am bi ci des mooy sëñ tubaa toog na ci ab lal du ngeen dégg ci histoire murit fenn fuñ ko nettalee sëñ tubaa li ñu xamoon ci moom mooy ab lal da cey teg alxuraan ak xasida waaye moom ci suuf lay toog ngir màggal alxuraan ak xasida waaye toog na ci loxo lalul soxna su gaawaan fonk soxna su ni mu demee mooy sëriñ bi xam ngeen ne 1918 gannaaw bi liggéey bi jeexee ba mu nekk njaareem tubaab bi def nañ seeni pexe ba wut ab médaille buñ ko bëgg a takkal ba wax ne sëriñ bi faw mu ñëw ndakaaru ñu ñu ñu ñu sargal ko takkal ko médaille yi ndax ak njàmbaaram ak ak maandu teem ànd gi mu ànd ak ñoom ci musu leen tooñ mu musu leen a yàqal dara wax seen i wax sëriñ bi yoon woowee muy dem ànd na kilifa yu bari maam Cheikh moo jiite woon yoon woowee nga xamne saxar lañ ko duggal amna sax yu ci xewon waye ñu def ay pexé rek ndax murid dañu won saxar gi du dem waye ñu def ay pexé ba saxar gi dem waye biñ ba ci ties sëriñ bi dañe maam Cheikh Anta yegg ndakaaru ndax sama xel mi bañ joggé ndiarém bu nekk dafa nekk dafa nekk ci soxna istu gawan, faaw ma gis Astu gawan soga de soga soga wëyel sama tukki bi nga xamne saxar gi dafa taxaw kees maam Cheikh Anta wut auto def ci ñu dellusiwaat si waat Bambey wuti euh, euh, euh, gaawaan ngir sëñ Tuubaa booba nam mun a soxna su gaawaan mënu koo ñàkk gis ci ci yoon woowee la dem dugg ci biir néeg soxna su gaawaan toog ci loxo lalal soxna su gaawaan ñaanal soxna su gaawaan soog faa bàyyi koo ànd ak maam Cheikh Anta dellu si waat kees soog ànd ak saxaar gi ñëw ndakaaru gi muy xew-xew boobu nga xam ni moom la fi ñëwoon 1918 ca daroon ci kër sëñ sëñ sang mbay la xaw ma nu mu tuddati foofu kër googu jàkkaarloog kër sëriñ bi ci di kon cër bobu mom la wax ne ci mom lañ mësa a ku am dara ju toll nonu ci doomi sëñ tuba du ju góor ju du jigen sëñ tuba jëg ak tankam ñew séti doomam tok ci ab lalam lolu soxna su gaan rek mën a am ndax sëñ tuba da ko bëgg ba gëmewu wu waye fayna na tuba borom ndax nim bëgg sëñ tuba mom kenn kenn ku ñuy tëkkaleeg soxna su gawan ci bëgg señ tuba amut ci dina gëna a leer ci biir wax ji bi nga xamé soxna si jóge na gaawaan bis bii nag bokk sëñ Tuubaa sante ca njaareem rek la ko tàmbali di ko maggal ba mu demee eh, gaawaan it da ko daan màggal di jàngal alxuraan ju bari di jàngal ay xasida di teral ñu koy jàng bi mu ñëwee ndulo itam bis bi daa wéy mu di ko màggal ndulo ba ni ko sëriñ fàllu toxal see tubaa mu ñibbisi tubaa wéyal bis boobu di ko màggal waye soxna si dekk nekulon bis bu mi wajj dedet soxna si dawul wajj dara dañuy xey rek tangal café seddel soxna si dal ne sama bis bi tay la dal di tambule yone dem len sama magal gi tey la wax len mok Abdou khadir dal di yone dar Musti bu ngeen ne sama magal gi tay la waaye bala ñoo julli tisbar rek kër gi fess del ak nak ci bi ñew ñu tak baasi tarkal magal gi mel no xamne ndax mom daa jubok borom bokul ak sunu garage gi nga xamne maanaam ñaari weer wala ñetti weer bu ñu amee bis dañ koy waaj ci du tax sax mu mel nañ ko bëggee moom ci bis bi la koy woote ci bis bi lay mat mel ni mu ko bëggee moom Soxna Astou Gawane muy bis bu màgg boo xam ne noonu ma ko waxee rek euh, waaye moom li ci xew lépp nee na taxut ma di ko màggal man daal sëñ Tuubaa ma ko digal ndigalal sëñ Tuubaa lay loolu loolay màggal gi bi mu ñëwee tubaa itam ne fa nekk fa ci liggéeyab sëñ Tuubaa bii waaye nag liggéey bépp mi ngi ko jël joyal ci alxuraan ak xasida soxna su gaawaan bëgg alxuraanam bëgg xasida moom soxna su gaawaan rek sëriñ lamin Guèye moom sëñ Moustapha Guèye yarwaay euh, nga xam ne sëriñ Fallou Mbacke moo jur waajuram moo jigéen sëriñ Moustapha Guèye yarwaay mooy waajuram moo ak sëñ Moustapha mii di xalifa sëñ euh, Moustapha Guèye yarwaay ñoo bokk lépp sëriñ Lamine Gueye nettali na ma ci bëgg alxuraan gu soxna Astou Gawane bëgg alxuraan bi ñu nekkee ca daara yi sëriñ Souhaïbou bu di jàng alxuraan ay moromam ab dong xam nga day bari pexe bu ñu soxlaa ay xaalis yu ñuy jënde ay café ak seen yi yooyu nee na dañuy maanaam wut këyit rek bind ci ab wala ñu bindul man ab isib wala dara tàmbali daal bind dara ci alxuraan daal di koy indil soxna Astou Gawane ñëwee daal di koy nuyoog moom ne ko bàjjande dañ yow laa doon bindal kaamil bii ma eh, ma tàmbale ko nak di won la ko ba xam bind mi man na naa wéyam soxna ci da cey bég lool neena dal di jël xaalisu bari jox la ne la gaaw leen na nga gaaw bind ko agal andil no kamil bi bo na boo ñëwee kayit leg léeg sax kenen day yakamti ba du bind mom da lay abbu kayit ga nga yobul chance si gaawaan ñëwaat wax ko lu mel la nga waxon waye da koy joxaat ci neena doomi señ tuwa dara umbu ko dana ko xamne keet di mo fi ñëwoon waye bëgg alcorane tax mu nangoon dong diko nax ci loolu nee nga xam ne mbooleem ko jaar ci daaray sëñ Chouaïb bu ca maaseeg moom rek nee na xam nga lii may wax ndax jaar nga ci soxna su gaawaan nee na ñoom ñëpp fa lañ daan wute xaalis da ngay bind rek loo bind ci alxuraan indi na ko yow laay bindal kaamil moom dana la jox ne ceneen bu ginnaaw suwaa boo dellu suwaatee kayit gaat waxaat ko la nga ko waxoon mu joxaat la lu ëpp joxoon ngir bëgg alxuraan ca moom dara ump ko ndax lii firndeel ne dara ump ko mooy soxna si mooy am naa sama wëllëre woo xam ne imaam Ndiaye mi ngi fii ci benn barak sax di fi jiite Eh, juma yar fi daara alxuraan ju mag waajuram dafa yoroon daara alxuraan di ko bëggoon sans gaawaan nag waaye xam nga ab sëriñ daaru du am jot mu namm soxna si nag ci amul jotuk dem fa mu ne daal kon naa bind ab nooru daara yi ni muy sama siyaar sama dikk ak soxna sas gaawaan bi mu bindee nooru daara ba noppi moom mii la ko bàyyam joxoon moo ma ko nettali nee na bi mu àggee ci soxna sas gaawaan bu nuyoog moom yëkkati nooru daara mu jox ko ne ko sama baay moo la ko jox moo la ko siyaaree soxna si daa daal di ubbi nooru daara mi tàmbalee jàng di jàng mu yàgg mu daal hmm, laa ilaaha illallah nga ne ko bind téere bi mu ne ko sama baay de moo ko bind mu ne ko araf yi kat ñoo ma xamal ne ki ñu doon bind juróom-ñaari téere mi benn musu cee mooy yàlla kon koo xam ne araf yi dañuy wax yow ku lay nax ci ay mbind xam nga ne dalaa neex waaye dara ump la sonas soxna moom yi lañuy ñuy waxtaanee ci bëgg alxuraanam bëgg xaside yi bëgg ñuy jàng xaside yi ñu wax ne dee leen jang xasida ci cedd ci ñaanal doomi sëñ tuwaay ba mu yàgg mu ne ñi may ngeen di ñaanal doomi sëñ tuwaay xam na ngeen xam ne yeen la bëgg dimbalé ndax doomi sëñ tuwaay ñom li ñi am am nañ ko ba nopi waaye nak ñaanal doomi sëñ tuwaay mi ngi melni nga jël ab bal di ko ci ab mir lu bal bi gëna dal ci mir bi rek lool lay gëna a dellu ci yow yeen la bëgg dimbalé rek kok moy soxna su di borom sañ-sañ bo xamne nak fo tak sañ sañ am wessu nako ndax xam nga ne ko tel ni Cheikh Abdoul Khadir ku koy daaj daajloo mbaar mu yend fa ngir mbaar ma kooko bàyyi na la xel euh, Cheikh Abdou Khadir ñëw na fa ab yoor yoor di ko nuyu si bi mu nuyoo rek mu ne ko Abdou xanaa xamoon ne sama kër gi amul matt benn matt amul ci kër gi mu ne ko léegi mbàkke mu saafarawu Cheikh Abdou Khadir mbàkke dem ci yoonu kolabaan euh, wi fa la jënd kab yow matt moom ba ci kër gi mu ne soxna si matt maa ngi taxe ne naa bu ñëw soxna si génn bëgg lool ñu wàcc kab yoo matt bi ci buntu kër gi soxna seen muy mattu bant yu mag yi ñu wut ay ay ay ñu mën a xar mat ñu ne fa di xar soxna si ne moom day mattum Abdou Khadir moom ku ci xar ak matt suñu borom dana la jëggal nga xam ne ku ne ñun ñëpp kenn ku ne fexe na ba xar sëriñ Abdou ñëw na fa di siyaara si soxna si dégg ñuy netti loola sëriñ Abdou dafa laaj sémmiñ wi am ci gaañi ku mel ne ñoom daaroog yooyu daw di njëkk a teg sëriñ Abdou Lahad sémmiñ wi ngir bëgg koo xaral mun leen waajilee lim ma ci dig mun leen ma ko defal kon bàyyi leen ma xaral sama bopp kooku mooy soxna su ci sañ-sañam bi ak njabootu sëñ Tuubaa gi xam mooy kan euh, am na bis boo xam ne ndax ajjuma la daan siyaare sañ Tuubaa ab yoor-yoor waaye moom yàlla da ko boole nag Cheikh Abdul Xaadir mu féeteeg moom ndax soxna su ñett la bokkal waajur wu jigéen maanaam ki topp ci moom Mouhamadul Muxtaar la ko sëriñ bi tudde ki ci topp soxna Aminatu la ko sëriñ bi tudde waye dañu téla wacc wàcc muhtar momu nak soxna su gawan da koo bëggoon lool mu tak soxna su gawan lool don ko xamne itam dafa don tout tank nuroog sëñ Tuubaa nuroog koo xam ne maanaam ñëpp di ko coow ko bëgg nga xamne euh bu do won doomu sëñ Tuubaa dañuy wax na chat loolu ko yobbu waye doomu sëñ Tuubaa am cat du ko yóbbu loolu mo don ak dundam non la wara toll bi mu soxna su gawan da koo lool mu diko joy mu naqari ko lool daanaka amatul jàmm dootu maslaa dootu def dara ba sëriñ bi xam ne daal Mouhamadul Muxtaar mi wàcc liggéey neexul soxna su gaawaan soxna su moo ñu ko nettali de nee na ci saase rek la soxna Aminta Bousso daal di indi Cheikh Abdoul Khadir nee na mu mel ne Mouhamadul Muxtaar lañ ko duppee nee na wuute ci dara ñoo tolloo ñoo nuroo ñoo bokk sax aw doxin nee na ma xam ne sëñ Tuubaa bëggul lu ma naqari ndax moom Mamadul Muxtaar mi dem ca neexu ma moo tax mu delloo siwaat ko muy Abdul Xaadir moo tax Abdul Xaadir moom man rek nga xam ne léppam si Abdul Xaadir bi Alaaji Njuuga Kebe yàlla na sëñ bi dolli ay leeram jëndee Mercedes yi bawal bawalam yooyu doon ko séddale njabootug sëñ Tuubaa gu jigéen gi bi ñu indee otoom ba ne ko Alaaji Njuuga Kebe moo ko jëndal doomi sëñ Tuubaa yi ñu ne nañ njëkk ci yow soo ko jàllee ci sarak yi def leen ne dem leen ci soxna moom yi ngeen wéyal liggéey bi jox ko ñu ci des man am naa oto nee leen ko jërëjëf am naa oto waa kër gi ne ko ah Mbàkke yow it jël oto bi oto amul ci kër gi nga ne am nga oto mu ne Abdou Khadir am na oto ci Abdou Khadir lu am maa ko moom nga xam ne oto boobu jëlu ko ndax sëñ Abdou Khadir am na oto ci oto Abdou sëñ Abdou Khadir mooy yónni oto mu ñëw ci kër soxna su gaawaan jël ko su ko jëlee day jaaraat buntu kër sëñ Abdou Khadir dem wàcc ko ci jumaa ji soxna si dem siyaara sëñ mag bi bu génnee day jaaraat nag ci buntu kër sëñ Saaliwu jaar ci yoon woow yi jëm Daaru Xudoos soo ko ñëw kër sans gaawoon wàcce ko soo ko dem ko seen Abdou Xaadir am na bis boo xam ne ba oto bi ba mu génnee dugg ci oto bi daf ko ne dellul kër Abdou Xaadir dama koo soxla bàyyam damaa yóbbante ci moom muy di kéemaane bi mu agsee taxaw ci ëtt bi sëñ Abdou Xaadir daal di génn ñëpp génn soxna si taxaw ba yaakaar ne sëñ Abdou Xaadir yaakaar ne soxna si du mën a bisimilah jàll si mën na ko déedéet sa bàyyi ma yóbbante sa bàyyi ma yónni ci yow maa ngi tub sax yóbbante bi sëñ Tuubaa du yóbbante kenn da koy yónni ne ko sa bàyyi ma yónni ci yow moom laa lay wax si sëñ bi xaar mu ne ko sa bàyyi nee na sant na la gërëm na la li mu bëggoon lépp yaa ngi ci di ko defale ni mu ko bëggee woon waaye na nga xam ne li nga bëgg lépp dana la ko defale ni nga ko bëggee sëñ bi xaar alhamdulilah foo toll di ko dégg soxna si daal dugaat ci oto bi dem këram keroog sëñ Abdou Xaadir dafa daanu mboolem nekk ci biir kër sëñ dana nañ ko yóbbul soxna su gaawaan addiya léeg-léeg mu génn gis dara xanaa lii soxna si dina ko soxla ñu nakk nag mu yow leen jox seen jox jox jox addiya sëñ Tuubaa daa mujj soxna si naan daa daanu jëlu Bàmba nag tey waaw kooku mooy soxna su gaawaan noonu la meloon ak Cheikh Abdoul Khadir ndax cër bi nga xam ne sëñ Tuubaa sédd na ko ko fayee ko ko rakkam jee di Cheikh Ahmadul Muxtaar waaye sëriñ Saaliwu mii nag da ab taalibeem di féeteem ñun ñi newoon ci kër gi xam nañ ni Serigne Saliou bu mosaan dugg ci kër gi comme yeneen kër semence gaawan xam nga ne boo duggee ci kër gi rek sa wetu càmmooñ fala fala bërigo yi newoon bërigo yu ndox yi ak ndaay yi te daanukat yi bu ñuy root daanaka xel yi ñuy daw ak bu ñuy sotti paan yi genn wàll gi day tuuru suuf foofa da daan tooy ba booy dugg ci kër gi dangay nga yëkkati say yére ba jàll soo ko dugg ci kër soxna si waaye sëriñ Saliou bu mosaan ñëw foofee tooy fa lay sukkee fa lay raame ba dugg ci kër soxna si bu ko siyaareet foofu lay raam yi soxna si topp ko bu agsi ci buntu kër gi mu soog a jóg nga xam ne soxna si du ko daan yéem lool naan Abdou euh, Saliou Mbacke amu ako amuk taalibe xaw ma lu ma koy fayee waaye dara mënut dox mu toog ci mu toogal mu toogal sëñ Tuubaa ci lalam bi te ba mu koy wax yàgg na ndax boobu Cheikh Abdoulaye fi nekk waaye soxna si Gaawaan daana wax ci làmmiñ boppam ñu di ko dégg daan na Saliou Mbacke bi ne fi ma teg ak ni ma fonkee xaw ma lu ma koy fayee xanaa teg ko ci lalu baayam bii rek mu toog wutu ko waaye teg na ko fi nag mu am fi fukki at ak juróom-ñaar doon sëñ Tuubaa moo xam ne kenn nattaliwu ko ba noppi dem des fi ku ne xam ne sëñ Saliou daa dem te des fi ndax du jóge ci xolu murid yi waaye ku liggéeyal soxna su gaawaan si Abdou Xaadir daana wax ne ku sëñ Tuubaa narta fayal boppam doo ko defal dara ku soxna su gaawaan def loo dara santal yàlla ndax sëñ Tuubaa boole na la ci ñooñam te nar na la boppam am na ci bokki beem yooyu damay fàtte tur wi koo xam ne si Abdou Xaadir dafa baaxoo woon di noog moom ka fay suba mu naajee ñëw nag sëñ Abdou Khadir nan ko tey de da nga naajal sama kafe gi mu ne ko damay ñëw ko sama xel nekk ci jaar ci soxna si siyaare ko mu àgg soxna si ne ma waaw kay ndax damaa bëggoon ku ma wutali këriñ ci suba ba léegi maa ngi xool ku ma wutali këriñ dawal wutali ma këriñ waaye laata moo daan sama ba wuti nga ko mu ne ko dem naa Mbàkke ba jëndal ko ñaari saako këriñ ba indil ko ko mu ne ko alhamdulilah santal kooku mooy soxna su nga xam ne dañ daan njëkkante ngir defal ko dara moom soxna su gaawaan ci sañ-sañam bu rëy bu màgg boobu yi gaal yi Sëriñ waa jële woon ci géej gi am na gaal gum ci yoroon mm, goo xam ne gum fonkan la bis nag mu xëy daan sama gaal gi de wax dëgg yàlla ni mu mel jaaduwut ndax gaal gu jóge ci sëñ mag bi de foo ko fekk daa war a yees tey rafet te moom daa bari xoosu xoosu waaye xam nga penturkat bu sell moom daa yombut ku mel ne Mbàkke a peinture ndax moom de sell gi foo ko takk weesu na ko waaye xam ko yii soxna sëñ Mbàkke di ni ah, mën de mu ne nañ ma ko wooyeli <laughs> ndeysaan ñu daal di dem sëñ Mbàkke Madina ko kaay wuy soxna su gaawaan sëñ Mbàkke ñëw ndeysaan ak mbaaxaay ba nuyoo bu ne mu ne ko sëriñ kat man sama gaal gii nga xam ne ci sama am lu jóge woon damaa bëggoon ñu peinture ko yaakaaroon sax mënoo peinture waaye ba ma ko waxee dongo yi ñu ma mën ngaa peinture sëñ Mbàkke nako waaw man naa pentul lu Mbàkke mu ne waaw man kay nee nañ ma mën ngaa pentul yow iya, mi meuna a nak kon yaay dem marché jëndi pentul ndax ya xam pentul yi bax ak ya ci wara and bo ñëw ñëwee ko bu di yónni kenn kat demalal sa bop nga xam ne sëñ Madina mo dem marché occas jëndi pentur jënd ay bor ay bor xaw ma ay mm, ñu koy xeeti boros la xaw ma jënd bobu diliens yi amagul waaye pétrole la jënd ëndalé bam ñëwé mo défar peinture penturam kenn laalu ci su meeku defar pentur ba génn gaal gi fomp ko ba mu set mu péntural ko soxna si ba gaal gi egg mu teg ko mu mu teg ko nii ci ab bang bu gudd teg ko ci naaj wi toog di jàng alxuraanam di xaar gaal gi wow ba gaal gi wow bañ mën ko laal mu fawal ko boppam yóbbul ko soxna su gaawaan soxna si ñaanal ko mu soog a delluwaat kooku mooy soxna su gaawaan bintu Cheikh Al Khadim di borom sañ-sañ boo xam ne daana wax ne yéen de yéen a ma waaye ñi ma bokkal sëñ Tuubaa xam nañ mooy xam nañ maay ya, daana am ñu mu tudd ci njabatu sëñ Tuubaa ne njabootu sëñ Tuubaa gi ñëpp a waye diu diw ak diw mom mom fa len tek Tuubaa tek sori na ñom dafañ ma tek nga xamne kon mom ku beru la dal ci sëñ Tuubaa mi ngi daru salam ku fa dem boko la ci ñu won lako mo len dina la li ma lay wax sëriñ mam Balla mom yi astu mom sëñ modou mamoun moy wajuram sëriñ Njoogu Mbàkke mi yoron barabu sëriñ mag bi mo jur wajuram bu jigen bi mu jange ndiarem alquran bo mokkal bo bind kamil ñëw tubaa nag di jàng ci jumaa ji ci sëriñ àlla ji sëriñ as xam-xam nekkoon kër maamam kër sëriñ Njoogu Mbàkke booba dafa am taalibe soxna su gaawaan di doomam di sunu xarit di sunu sëriñ di sunu soppe di ko nu dimbale ci lu baree baree bari di ko ñaanal sëriñ bi dolli ay leeram te dolli ay xéewalam ci barkeb xasida yi ndeysaan euh, duma ko fàtte mukk jëmm jooju muy sëriñ Afe Mbakke moom sëriñ Abdou Wudoot sëñ Modou mi nga xam ni moo nekk ci commission bi yore màggal gi euh, mooy rakam sëñ Afe moomu moo doon suñ jëwriñ ci kër soxna si du woon mag sax waaye gannaaw doomi soxna si la ndax sëñ Afe Mbakke euh, sëñ Abdou Wudoot mooy waajuram sëñ Abdou Wudoot sëñ Afe Mbakke moom borom euh, sëñ Mor Anta Sali di rakk sëñ mag bokk sëñ gaawaan lépp mooy. waajuram kon koku, doomi soxna sugawan la di ko nak di murit saadix seni afi mom da non xarit sëñ mambal la sëñ mambal di fa nak, am bis mu ñew di nuyu soxna si ñaari xisa la benn bi daa nuyu soxna si fek muy bis yi baxa wor yi xam nga bis yi baxa wor bari na melni euh mm, tam xarit bu ñu suba la ak bis tam xarit bi le melni ni rajab melni ni sowan bis yoy ben laal la ci bis yoy bamu bamu nuyo mu soxna ko abibu mom daaw ko eh, sax eh, eh, mam bala abibu rek la ko dan abibu lahi mu ne ko mbàkke mu ko woor nga seigne maham dere mu ne ko waaye yéen waa du ngeen ñeme koor ndax sa sa maam de bay si ni ragal won koor amna bisub koor bu melni bo boo da xey di ma soñ ni ma naa ko añ man la bëgg ma togal ko añ ko ah bàyyi da nga ne tay bisub koor la mu ne ko xanaa yéen ñi seen bàyyi demoon géej yéenay woor waaye ñun ñi suñu bàyyi demul woon fenn kay añ la ñuy def ndeysaan nga xam ne soxna si di ko nettali loolu <laughs> waaye bis bii nag euh, keroog soxna si da ko wax wax ju yéeme ndax def ko ne abi bu mu ne ko mbàkkee mu ne ko xam nga lu tax mu fonk laa mu ne ko ah déedéet di mbàkkee xanaa danga baax rek mu ne ko ah damaa xam ne mboolem mbokk yi sëñ tubaa yi ñi sëñ tubaa bokkal sa maam Cheikh Anta la ci sëñ tubaa gën a bëgg ne ko xam nga ni ma ko xamee mu ne ko ah déedéet di Mbàkke mu ne ko damaa xam ne man ay sutu fi ma sëñ Tuubaa teg képp ku ma sëñ Tuubaa séddale képp ku ma sëñ Tuubaa séddale yemaloo laa kenn te maam Seex sa baay sa maam la ma sëñ Tuubaa woon moo tax ma xam ne sëñ sëñ gaawaan la gën a bëgg ci ay bokkam ndax jox ki ma ko jox nga xam ne kon sance gaawaan xam ne ne fi fi ko sëñ Tuubaa teg tegu fa kenn ba ku ko sëñ Tuubaa booleel sax kooku la sëñ Tuubaa gën a bëgg kooku mooy sens gaawaan bi incha allah di borom sañ-sañ bo xam eh, di borom batin bo xam bari yërmande lol xamne ne amna ben na daayir bu musa a jóge kawlax am ci ben way bu baax ndaysan ab commerçant la bu demone marché kawlax bi ñëwé ba ziaré abdul ahad ba nopi genn di euh aynu genn na dañuy dem armée ya dafa am dafa am ci ñom ñu ne dañuy am armée la ñu ne nanga mu ne daal man dama amoon yitte yi gis soxna su gaawaan gannaaw nag dellooguñu yéen da ngeen dem armée ya man ma génn nii ci buntu ay bi jëm kër soxna si dem siyaara soxna si su ko defee bu ñu dajee jumaa ji mën a ànd dem bu ñëwee ba nuyu soxna si nag soxna si laa muñ soog moom laaj ko fu mu yëpp soxna si ko waaye yow nag da ngay toog na ma laa soxla toogal ba ma yeewee la dégg nga mu daal di génn toog ci baar mi jàpp ne soxna da yi xaar ko xaar gisuñu ko ñu wax ko mu ne ah soxna si dafa mënoon naa xaar ba mu yeewi ma te duma dem di ko tàggu te yeeweegu ma léegi yéen man ngeen a dem man bu soxna si yeewee rek dinaa jël oto fekk si leen waaye mu ne fa ba jant bi ba soxna si yeewi ko yewi ko mu fanan ci suba ko mu yendu fa soxna si yeewi ko ba mu def fa ñaari semaine ba fa defee ñaari semaine ci dimanche ñaarel ba nga xamni moy mooy toll ci fukk fan ak xelam jox ko rek ne ko gannaaw téye nga fi téye na la fukki fan ak ci xamoo kañ la lay yewi mu ne nak man sama place daanaka bi mu fay jóge waju mo won dama ñëwoon rek siyaar saint blaise wara delu dellu sax na ci téye ma fi ba légui léegi damay comme am ñu ko waxtaan ci kër neen damay fajaru fajar tel, manam Premier car bi départ cette place yi jëm ko la mo jël ko su ko defee damay dem marché du jaar sama kër sax su réglé sama place ba mu rek ma demaat garage jëlaat auto ñu bala midi ba soxna si ubbi balaa soxna si ubbi rek dana fekk mu ñëwaat soxna si doo xam sax ne demon na ñam ko waxal ne ko ah, wala bu fekkee ne loolu kay mo gën ndax gëna waajo won ndaysan rek mu ndaysan mu ci fajar gi mu daal di dem garage jël cette place daal di dem jëm kaw lax ndeysaan bi mi genn gossas ci tournalu gossas bobu rek oto bi dafa xalangu kepu mom rek la yalla dogal mo ci fatu fatu ndeysaan ñu indi ko bi xibar bi siwe ñu indi wax ko sonu su ne ko kat mom ci fajar la fi jóge won don dem Kaolack nettali ko ni mu demee rek way yalla da dogal mu fatu ci digënté bi indi nañ soxna su ne waaw mom day dama leen di téye ci sama kër gi japp ne sama njariñal bop ci man jariñuñ ma dara ñom rek la bëgg dimbalé mom kër ak bu mu fi ñëwé di ma si bi muy dugg ci kër gi la malaakal mawti taxaw di ko xaar ndax moom ñëwatu dugg sama kër ma xam ne kii malaaka mi jëlug róom rek tax mu topp ko te ma xam ne man naa ci dara moo tax ma téye ko ci sama kër gii bëggoon tàggale koog malaakal mawti dolli aw fanam mu mu mu mu mu mu guddaat fan ba li mu yéene liggéeyal suñ tubaab man ko koo liggéeyal daal na jantub tey bii laa doon noppi ci moom su fi su fi yenduwaatoon tey ba jant bi soo ma yeewi ko te lu mu gàtt gàtt dina dundaat ñeent fukki at waaye nag daa yàkkamti waaye kon dem leen joxal ma ko sëñ waa kooku mooy soxna su Gaawoon bint Cheikh Al waaye loolu yëpp da ngay xam ne dafa tabbi ci biir cadre yërmandeem moom soxna su Gaawoon maa ngi koy nettali keroog rek yërmandeem yegg na ci mos nañ koo indil addiya gerte astaghfirullah waa gerte gerte xott ay saakuy gerte xott yu bari soxna si ne nañ ko def ci magasin bi ba magasin bi tappaati bërigo yi lañ jaron def ko ay ay lacc seng làcc bërigo defal fa magasin bu baax wutul ko kanar ak ak sen di tej buñ fa dugalee gerte gi nak bayiko ko fa mu yag fa ndekete mom guddi gu ne rek kañe dañuy dajalo joxante fa randiwu yéey gerte gi ba dara desu ci soxna si xéer rek nañ ma gënal sama sakku gerté gerte yi ñu dem rek saako ya gerte gaak lepp kañe yi lek nañ ko ay xotti kese fa dess ñu ne ko amul ah, daa mel ni kañ yi dañ laa dañ ñëw wuutu foofa dara daal ci gerte desut fa gañe yi lekk nañ lépp ba dara des soxla ah di ñu ne waaw mu ne kon nag nañ ñëw dem marché Ocass gaaw jënd li ma gerte marché eh, gaar bu ndaw jënd li ma gerte daal di yónnee génn xaalis bu bari yónnee nañ dem marché yi eh, ci gaar bu ndaw fi ñuy jaay gerte jënd li ma fa saakuy gerte gaaw bañ jëndee saaku gerte bi indi ñu yaakaar ne soxna ci da soxla gerte moo tax mu diko jëndul mu ne nañ ko dellawaat ci magazine bi ci tëjaat ko nank bayiko fa ndax ñooñee fa doon jëlé gerte gi bu seen xel nekkaatee ci gerte di dañ fa dellu ci ca bëgg mu ñëw fa duñ fa fekk gerte seen yaakaar tas ci man ay setu yaakaaru dajé ci tase ci man loolu nak warna dal xel képp ku bok ci anu khasida xam gannaaw ay kañay yu dox guddi rek ci ñëw ñëwuñu ci ndigalam diko yakal si ñoom la dul tas seen yaakaar asteeg kuy liggéeyal sëriñ Tuubaa ci xaside yi te moo waxoon ne yéen ñiy jàng xaside yi sa sëriñ Tuubaa yi may seen ndey kon war nañoo sant yàlla bu baax a wax ndax dara wax ne Aysatu mu njëkk ba de mooy umul na waaye man man astu gaawaan may umul muridina muy jëmm joo xam ne daal noonu la ak dundam mel lépp lépp kéemaan la lépp kéemaan la njabootu sëriñ Tuubaa gi fonk ko lool. doomi sëñ Tuubaa yi fonk ko lool ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi nag ba noppi muy kilifa gu mat kilifa ci di leen wan na kilifa laa bëgg sëñ Tuubaa lool ndax mës naa am mbës mu yónnee ci Cheikh Abdoul Ahad ne bu ngeen demee ne Abdoul Ahad damaa soxla piisu piisu mbasin bi ñu àggee Cheikh Abdoul Ahad daal di yëkkati benn piisu mbasin daal di joxe ne bu ngeen demee joxal leen ma ko bi ñu agsee ne ko ah, sëñ bi de moo joxe puce mu ne waaye ku ko ne man bii laa bëgg nee na ko bëgg mu yu melo mooy bi lay wax neen ko bëgg mu bii daal jëlal yóbbu ko boo demee jox ko ko ko bëgg mu boobu waaye ndaw la ba mu delloo simplaat ne ko sens nee na bëggul couleur bii simplaat dafa jëlaat beneen puce mu ne ko boole ko bi nga bi nga bi a jox yóbbul ko ñaar yëpp bi mu dellusee ak ñaar sëñ bi soxna def ko ne bu ngeen demee nee nañ ko bëgg ma yii couleur laa la wax na ma indi na ma jox ba ma bëgg ci wax ko couleur bi mu bëgg ndaw li dem na juróom yoon juróomi piis yi mbasin waa ji nga xam ne waa ji daa yenu ba diis simple at mujj na ko bis bu mu leen bëgg ko waree bàyyi ko fa ca daw ñëw yow ma jox la mu bëgg waaye bi mu demee juróom yoon ñëw nag ñaq tooy xib daf ko ne toogal dama ko doon seetlu rek waaye moom foo foo natt muriteem gi weesu na ko fii ne bu ma bàyyil woon du bàyyi waaw kooku mooy sans gaawa ne waaw ah, Abdoulaye de muriteem gi foo ko natt weesu na ko dama ko doon seetlu rek waaye fii ne bu ma bàyyil woon du bàyyi saa demee mu jox la beneen kooku mooy sans gaawa nga xam ne dafa xamoon li mu doon ci sëñ Tuubaa xam ni mu ko seqal mos naa ñëw kër sëñ Abdul Ahad fekk murid di bari lool xam nga kër xalifa sénégal rek ni mu mel suba gi fees del daayira yi fu ne nit ne fa saint blat ubbeegul mu ne ana abdoulaat ñu ne ko daa ubbeegul mu ne ñu daal di ko yóbbu ci biir fa saint blat ne mu fekk saint blat di jàngal xam mu ne ko abdoulaat looy def nii mu ne ko dama àggale sama gi mu ne ko waa ji yàlla moom li ko matoon a jaamu sa bàyyi jaamu na ko ba noppi yow sab liggéey mooy lijjantil ko talibé mi sa kër gaa ngi fees del jógal lijjanti murid yi nga xam saint blat daa daal tëj kaam yi daal di génn tàmbale seere daayira yi kooku mooy soxna su gaawaan nga xam ni moom ak murit da koo saf da koo ñor maanaam ki soxna su gaawaan gën a yaatal ci boppam mooy ki gën a murite eh, keroog rek maa ngi dégg loolu moom fekk ma ko sax waaye dama koo dégg rek ci ku baax a baax muy eh, sëriñ eh, Mamor xam sa diine moom sëriñ Jili Mbaye moom suma sëriñ la sama wóllare du ma dañ ci ko wax ndax al wirdul maxuus bi ma koy jëlee ci sëriñ Abdul Xaadir ci loxom moo ko bind ci loxom jox ma ba tey bind maa ngi may barkeeloo mune tudd na ñaar ci kilifa yi ñu baaxa a baax ñoo xam dañoo ñëwoon ci sans gawan diko ko siyaare si waaye bi ñuy ñëw nak dañoo dañoo salu ba rafet lool rek neena na bi ñu sans gaawan gis leen ak seenu toilette ngir tarbiyé leen sans daal dafa ni man day xam nga lu bëgg ngeen defal mako ñu ne ko waaw mbacké mu ne matt bëgg ngeen wutul mako waxuma nak ngeen def ko ci saret waxuma ngeen diko yannu kenn ku ne ci yeen na na taxan mat yenu ko ci bop bopam andil mako fi nga xamni ñom dañu dem ba ci àll buut ay mat tak seen ndigg yenu ko andil ko sans gaal mu soog leen ñaanal nga xamni ci lool lepp du ko def ci neen lu mu def lo nit rek lu ne gis na cër bu wara joge ci sëñ tuwaa ñew ci mom bëkk ko jot li moo tax mu di ko def lo ndax mom ku mu def lo dara na wax ne man de astu gaawoon ku ma liggéeyal fay la waaw alhamdullilah rabbil alamin ndax li ñuy def ci liggéeyal ko te wér na ne yàlla danañ fay ndax lu mu wax yàlla def ko ndax man mii am na lu ma ko mos a wax ndey saan ba ma noppee mu ne ma na ci seen xel dal ndax man astu gaawaan lu ma sant sëñ Tuubaa mu def ko waaw te yéen ngeen ma sant dal naa ko def di koo xam ne daal euh, ak dundam lépp barke la euh, lépp noonu yi la di koo xam ne yërmandeem ak mbaaxam ak bëgg sëñ Tuubaa nag moo doon wax ca njëlbeen ka euh, danaa ci indi rek firnde ndax boo ne moo raw ci bëgg sëñ Tuubaa ca firndeeloo ko ku ne mën ngaa indi sa waay teg waaye li muy wax kenn dootu indi keneen teg soxna su gaawaan ñun ñuy toog nañ ca buntu kër ga di ko waxtaanee sëriñ Jibi saar fekkee na ko ak ñu bare bari sëñ Adama Niang ak sëñ Murit Guèye ñu baree bari sëñ Afe Mbàkke mi ma nga foon ay 3 heures du matin ci guddi ñuy waxtaan xam nga guddi booy wax wax ji day xaw a xumb rawatina murit ji nekk ci sëñ Tuubaa soxna si ndeke ma nga ci biir nekk ci kurus moom yàgg soxna si génn ba ci buntu kër gi ñun soxna saa ngi ñu tiim yëguñu ko mu jël kurus gi dóor ci yi kang-kang ñep sigi mu na anu lu ngeen def fi waye soxna ci dañ ko wékon ba kenn ñamu a tontu ñep na cell sëñ afe mbàkke mom moko ko ton daan ko waaw di da melni ne dañ lan waxtaan ci sëriñ bi rek lañ doon waxtaane ndeysaan mu ne moom koy loolu la dégg waye afe sëñ tuba mi ngeen di waxtaane kenn du ko waxtaane ci mbedd ko toll ne sëñ tuba ko koy waxtaane da ngay dugg ci biir kër waye koku kenn du ko waxtaane ci mbedd da ngay xol gogo gogo warmal sëñ tuba ko ko ci fekk ndax nit ñi mbedd yeeg oto yeeg taatu garab yeeg fu la ñuy waxtaane sëñ Tuubaa waaye moom dane kooku ngeen di waxtaane moom moo tax a jóg ndax damaa dégg ngeen ko tudd te sëñ kenn du ko waxtaane ci mbedd jóg leen dugg ci kër gi nga xam ne dafa amoon néeg boo xam ne néeg Tuubaa la ko tuddee buñ masaan toog ci mbaar mi wala feneen day xam ne dem ah, am ngeen jot toog dugg leen ci néeg bi toog te jàng fa xasida ba ngeen waxtaan fa ndax néeg boobu moom toog fa rek ak jaamu yàlla la ndax néeg sama mag ju baax daal sëriñ Fallu néeg boobu yi sëriñ Modou sa Dieng moo ko indiloon li waral mu indil ko ko booba nawet bi dafa dugg ba nit ñi jaaxle ci tawut ñëpp jaaxle sëñ Modou Sy Dieng xëy ñëw fa ne ko Mbàkke daal ñëpp a ngi jàmbate ko jaaxle am ndox daal lañ bëgg mu gaaw te barkeel te mën nga ci dara mu daal di koy rek ne ko ah Modou bu sa yaakaar nga ne dina taw mu ne ko ah yaakaar nañ ko yow lañ ci yaakaar mu ne ko xanaa gisoo sama néeg bi ni mel sama néeg bii ni mel fu ne ndox man faa jaar nii defe ngeen ne danaa bàyyi asamaan taw di sama xasaayit ji ha lol de mom bu ngeen ko yakare du meuna nek bu ma amul nek bu bax de du taw seigne modou nako ko tay tay nga amum nek duma ko xare suba dafa da dem ndindi nek seigne Fallou ba yanu andul ko sonu sugawan gaawaan keroog la bët séb bi aduna sepp toy nayr bu nangul at momé lu way bay rek am nga ci lu upp la nga yakaron kok moy sonu sugawan ngir jub ak mom dal yoyu euh seigne man nañ ci fanaan bu beut set waaye soxna su gaawaan mooy jëmm jooji moo mel noonu yi eh, nga xam ne ci ziaram yooyu mu daan maanaam ci bëgg sëñ Tuubaa gi am na lu ma ci fàtte mooy li ma wax ne moo gën a bëgg sëñ Tuubaa ñëpp xam nga wax naa leen ne waajuru mu jigéen ñett la am ñaar ñu jigéen ak kenn ku góor soxna su gaawaan it noonu la yàlla dogal ci moom moom it ñaari doom yu góor yu jigéen la am ak benn doom bu góor doomam yëpp it ci kanamam lañ wàccee ab liggéey muy lu metti waaye ki ci mujj rek bi mu wàccee liggéey ñu di nga xam ne loolu mu fekk na mu fa bañ ko yóbboo ci armeel yi ba denc ko ba dellu si soxna si dafa génn ba ci ëtt bi daal ne tey jii ku ma sant la sëñ Tuubaa ma dolli la na ñëpp sant sëñ Tuubaa kër gépp yi riir jërëjëfe sëñ Bamba jaaraama Cheikh Rafal jërëjëfe sëñ Bamba jaaraama Cheikh Rafal jërëjëfe sëñ Bamba jaaraama Cheikh Rafal soxna si teraanga june keroog def na ko la sëñ Tuubaa ndax tay ji dara doxatul sama digg ak seigne touba ndax suma mosan bëgg seigne touba ba diko xalaat rek sama doomi ne ci sama xel mi tay nak ñepp dem nañ ca yàlla wéji nañ seen borom kenn desatuma ku may galangor sama digg ak seigne touba numa neex bëgg seigne touba lool lay sante yalla mané ku ngeen fi gis mu bëgg seigne touba ba ak ba jaral ko yabal ak njabotam lu way bëgg-bëgg seigne touba lijeenti nga ba bang fi joge sab taaw ma la don sonos su gaaw nag daa bëgg seigne touba ba jiital ak njabotam dessé seigne touba waye seigne touba fay nako ndax ku bëgg sëñ Tuubaa te muy dëgg ci yow bëgg xasida yi di ko dund nangu ko soxna su gaawan di sa ndey kon yàlla fay na ko doom yoo xam ne kenn xamul seenub lim ndax nun ñëpp njabootu soxna su gaawan lañu te soxna su gaawan moo nu gënal sunu dund waaw ak bëggam rek ci la ñuy xëy ci la ñuy gont te lii rek la mos a bëgg mooy liggéey bi sañ tubaab yi dox bañ laal suuf ni ko sëñ Muntaxa waxee te liggéey bi du laal suuf ndax am na liggéey bu ñu santoon ci as sindi di nga xam ne daf ñoo man ak sëñ Adama ne dafa am liggéey bu ma bëgg a liggéeyal sëñ tubaa bëgg ko teg seen loxo ngeen saytul ma ko muy dama bëgg a liggéeyal sëriñ tubaa ci xasid ak sindi di lim boo xam ne kenn mësu ko koo defal maa ko njëkk a defal ma dama bëgg a jàngal sëñ tubaa ñetti ñaar fukki junni ak juróom-ñett ci ay sindi di daal ne ni ma ko bëggee nag mooy da ngeen di dem njaareem bu ngeen demee njaareem ca biir kër gu mag ca xay Nik boobee serigne touba wàcce ab liggéey Amna na palanteer su ndaw su fa ne palanteer su su ngeen ko ubbee ba duggal sen loxo ci bir ci suuf sa na ngeen gas touti bu ngeen gasee touti di ngeen jot aw xeer xeer wowe ci la touba njagana njaganaayoon karak bi mi wàcc ab liggéey soxna su gaa moo ñu nettali lii ne bu ngeen jotee xeer nag ngeen tibbu ci la ko wër manam fekk dañ daf ñoo yoon daf ne na ngeen jënd maître bu ngeen demee ëmb ca suuf sa boole ñoo kayor barab ba ku ñuy wax sëñ Abdou Diop duma ko fàttali bu ngeen demee ngeen laajte ko daan Abdou Diop nag du nit jënne la fi ne bu ko neexee bu leen séenee ca bëggul ngeen gis ko di ngeen ko gis waaye bu leen séenee dina xam ne maa leen yebal waaye bu du woon loolu fi ne nit dina fa ñëw mu séen ko nga séen ko boo xefee rek boo xoolee dootoo ko gis ko kéemaane nga xam ne soxna gaa ñu wax loola bañ demee wax ko ko ñu ubbil barab boobee ñu duggal suñu loxo tek nañ suñu suñu loxo su bon si ci xéer woowee nga xam luñu am mën nañ wax ne ci xéer woowee lañ ko jëlé ndax sans Su mo moo na ko baaxee ñu tek ci suñu loxo bu tibb ci suuf soosee ëmb ko mu ne bu ngeen ci noppé na ngeen wut musuwaar boobu musuar yi ñu jaay ci bitigi musuar tisi mu ne na ngeen ci jënd ñaar musuar ak juroom ñett séddale suuf soosee ci musuar yi ñaar fukki musuar ak juroom ñett su ngeen ci noppé nak ngeen sét ci mourid yi mourid bu sel bu ne té pësteefu te amuk dogu ngeen jox ko benn mouchoir mu wéet jàng ci junniy si ndiit yi bu ngeen noppee dajaleel mu mouchoir yëpp ëmbaat ko ci morso boobu yi ngeen yóbbu woon njaareem indil ma ko ba ñu liggéey liggéey boobu ba noppi ba indi ko ndeysaan <laughs> da koy yëkkati ak ñaari loxoom ni yëkkati ko moom tiim bopp bi nii ndeysaan nga xam ne bu doon mbër day mel ni kuy bàkku daan lii de maa ko njëkk a defal sëñ waa ci kaw suuf néeg leen ma ma dem yóbbul ko ko te dellu si moo daal di yónnee ci oto sëñ Abdou Khadir mu ñëw mu yóbbu euh, kii bi dem ca barabu sëñ Tuubaa ba sotti ko fa daal di ñëw ne seen liggéey bi di joxal naa leen ko borom xam ngeen lu leen ci borom fàggu la ñu ne ko ah ñu ñun de yow rek lañu xam mu ne borom fàggul na leen ci li gën a li li ñëpp bëgg te mu te mu jafe mooy taalibe gu sëriñ bi nangu ba noppi sange ko ba dara mënatu ko yàq am jële ngeen ko ci seen liggéey bi loolu tawfeex la joo xam ne yàlla baaxe nañ ko ci jëm moom ju sell ju tedd jooji moom sans gawaan ziar yooyu mu daan def euh, sëñ Njogare ngir ñu daaneel foofu rek li tax mënuma ko fàtte ñëmuma ko sax mooy kii nga xam ne ci moom la rot muy Serigne Saliou da koo fonkoon lool mën naa wax ne man mi it lu ma am ci Serigne Saliou gannaaw yàlla xise bii moom ma ko may ndax euh, Serigne Saliou dañ koo nettali ne ko moom de daa mel ne soxna si mës naa jóge ci barabu sëñ mag bi ñew ba tollu ci sa buntu kër gi wax ne chauffeur bi taxawal ñu wol ma saliw Mbacke sama taalib bi ma nuyu ko señ saliw ne ma nga ne mo ne ma dama def ne chauffeur bi taxawal ñu wol ma saliw Mbacke sama taalib mu nuyu ko rabbil Alamin. bi mu koy wax ak bi xewali di wacc ben la mu jël kala gi ndeysaan lolu señ Mbacke señ saliw laaj na ma ko fukki yoon ak juroom ben fukki yoon ak juroom ben man naa ne jataay bu ma jataayu señ saliw lu ma daf maanaam daf ma naan am na bis boo xam ne fajar laa fa dem am ko fa yóbbu ko jóge Gabon yàgg fa lool di jàmbaar tuubal fa ñu bari nag waaye gëjoon fi bi mu ñëwee nag benn xaritam boole maam moom nen daal dafa bëgg sëñ Saliou moo woo Saliou jaxate wax ko ko mu ne ma da ngeen di fajaru teel a ñëw bañ àggee ba kooku nuyoog moom ba sëñ bi laaj ko Gabon daa jàpp na sax bi ñu génnee mu ne sëñ bi ñaata at la def Gabon ma ne ko mosu faa ñëw de waaye dara da ko umpul rek waaye bi ñu noppee ci loolu sëriñ Saliou dafa ma ne moom de damaa xamut sa itte fu mu toll waaye namoon naa lool ku waxtaan waxtaanee ci Soxna su Gaawaan waaye yitte ji nag laa xamul fu mu ne ko am ah, mbàkk man amul benn yitte sa yitte rek laa mooy sama yitte nga xam ñooñ dama leen ñu dellu si man ma yendu fa keroog waaye loo ko mën a wax ci Soxna su Gaawaan fii ak indi woo xisa da lay wax na si mu tolloo ci buntu kër gi lu ma waxoon <laughs> waaye noonu la demee ndeysaan soxna si bi mu ci buntu kër gi rek dane sofoor bi taxawal ñu wool ma saali bu mbàkke sama taalibe bii mu nuyu ko nga xam ne loolu li gën a rëy ci Serigne Saliou ci luñ koy nett ci Soxna su mooy baatub sama taalibe bii génn ci làmmiñam kon bu ñu yàlla mayee ñun ñuy taalibe Soxna su Gawane ci loolu dama ne lu yaatu la képp koo xam ne bu ñu bu ñu nee ahlu xasida sëriñ bi soxla ngay lijjanti paas baa nga waaxu wuti kër sëriñ bi yëgal ne ci taalibe Soxna su Gawane di nga bokk ndax liggéeyu xasida yi Soxna su Gawane la ko Sëriñ Tuubaa tegoon ci loxoom te liggéey bi laalul suuf ndax gis ngeen ne liggéey boobu mooy dox mooy dox mooy dox ba tegu ci loxol am Amsatu Mbàkke moo indi màggalu xaside gi moo indi kuréeli xaside yi moo indi sornay xaside yi kon yàlla nañ ko yàlla fayal waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu.